a téléspectateur télévision Futur Média li nga xamante ni euh, moom la télévision Futur Média baaxoo def ak groupe Futur Média yëpp mooy bu ñu jëmee ci bés bu màgg bi nga xamante ni moom mooy màggalu Tuuba dañoo fas yéene di leen xamale di leen wanale wala di def ay gëstu ci ñi nga xamante ni euh, ñoo andoon ak Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul ci liggéey bu màgg bii nga xamante ni moom la doon liggéeyal sunu borom subhanahu wa taala moom la doon liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa moom la doon liggéeyal humanité liggéey boobu nag kii nga xamante ni mooy jëwriñ ju magam ja di Babul Mouridine di Cheikh Ibrahima Fall amoon ci taxawaay bu am solo ci wàllu wàllu yu bari waaye tey nag ñu fas yéene tijji benn fenêtre bu ama am solo ci wàllu mbay ak ci wàllu càmm mais mu englobé waat tamit ay mbir yoo xamante ni yu am solo la ci wàllu foncier ci wàllu accès à la propriété ci wàllu décentralisation waaye ci wàllu souveraineté alimentaire bi nga xamante ni euh, lii nga xam moom la ñuy dund jamono ji muy contexte coronavirus bi daf ñu fàttali ne nit ki bala muy moom boppam balaa muy xam boppam balaa muy mën boppam lii nga xamante ni moom lay dundee daf koy bayal boppam waaye suufam it daf koy moom Cheikh Ibrahima Fall wane woon ci benn taxawaay bu ama am solo lu loo xamante ni sax jël jëlloon na li nga xamante ni moom mooy yoonu murit mais gis-gis bu mu amoon ci Sénégal la gis-gis bu mu amoon ci doomu aadama la gis-gis bu mu amoon ci nit ku ñuul la gis-gis bu amoon ci Afrique la tey ñu fas yéene ci ànd ak koo xamante ni yàlla suñu borom daf ko defal tawféex mu xereñe ko def ci ay gëstu yu am solo muy sëriñ Moustapha sekk Baye Fall ñu fas yéene ànd ak moom ci benn liggéey boo xamante ni bu am solo la boo xam tàmbali nañ ko groupe bi tàmbali na ko jëm ci li nga xamante ni moom mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar bii nga xamante ni Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul wax na ne lépp lu mu am bés bi moom moo ko ko may ñu ñëw nag di ko defee fii nga xamante ni it euh, tawféex bi ñu am mooy dañ koy defee ci ay tool yoo xamante ni kii nga xamante ni moom mooy Serigne Cheikh Jëmb Fall di xalif général de bay Fall jiite njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi jamono bi yàlla na fi yàgg lool te wér moom moo fi amal tool yi mu ñu fi bay dugub di fi bay gerte ak yeneen ni meññeenteef waaye tamit nekk ci wàllu càmm gi. mu nekk loo xamante ni lu ama am solo la waaye dara du leen ci um ñu daal di ànd ak ki nga xamante ni moom mooy Serigne Moustapha Seck jotaay yu am solo lañ fi nar am jotaay yu xam lay nekk waaye jotaay xam sa réew ak bëgg sa réew ak xam sa ñoñ ak xam sa bopp lay doon kon léegi ñu ànd ak Serigne Moustapha Seck musul ci seytaane muy auzu billaahi mina seytaani rajiim yàlla te mooy bisimilahi rahmaani rahim julli ci yonent bi salaa salaam ni ko ko baax ke waxee zuma salaatu alal muxtaari min mudarin xayril bariyati min baakin wa mubtasimi doy nag ñaan yonent bi sëñ tubaa na muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bu àdduna sépp maasawante nattarlu doon gi mu doon gën di moom la ko yàlla def su ko àdduna sépp doon bànnee xoot moom la ko yàlla def kon nu julli ci moom yaa rabbana habli bi xaqil kawsar yumnal xayaati wa ujuri kasiri amin fii nga nu fekk ci daar yu tërbiye nga nu fekk daar yu tërbiye nag moom la maam si Ibrahima Fall sosu yoonu murit ba ku baax waxee ni yonent bi sallallahu alayhi wa lu jóge ci yàlla bul yar nit ñi ci jàng kese waaye na nga leen yar ci yitte mooy walaatu walaatu rabbi bi bi bi dar si fàkkat am na ñu ne fàkkat ja ca am na ñu bokk waaye daal bu leen yar ci ittey kese ca la maam Serapha Socé nag daal di tërbie mu yitte dina indi dongo yi ay magi jëmm lañ ay mu kalaf lañ yoo ànd ak seeni xel koo ci séqalin un milliard tey boo ko bëggee nag un franc mu bañ kon nag ñu nekk fi pendant des années di am lu ñu ngërëmul yàlla kon li ñuy wut mi ngi fi am nañu ko la sunu waxkat ba wax Amadou Ampaté Ba nee na un million soo ci génnee un franc amatu un million waaye xam-xam boo ko joxee ba mu jeex ci ngi ëppee xam-xam ñi nag seen doole lañ jox yàlla waaye ci li gën a bari dafa mel ni koo ci tàbbal tàbbal nga ko géej te Cheikh Mame Cheikh Fall ni mu dul liggéey ci fànn yëpp nag lu nit mën a liggéey te muy lu dagan islam mën koo jariñoo dugg na ci def ci loo xam te ne kawe na njor kon day mel soo tàbbee ci géej bu fekkee jën yàlla yitteel jën woo ca gis wu ko gën a rëy ko mu nga biir bu fekkee ndox maa la yitteel foo ci yima ko xuus foo ko gën a xuus gën koo lëgg mi ngi biir géej yaa fa yëggul saa am si raf fànn noonu la dem woon ak liggéey waaye mu indi la ci ay doom sëñ ci loole mu doon ci maamam doon ko ci wujur sëñ mu taa Fall moom li waaye maam si Ibrahima Fall bi mu ñëwee nag moom ci xam-xam bi mu yor moom nga xam te ni yàllaa ko ber fekk tubaab yi bi ñu dikk ñëw hollandais yi ñëw nañu Sénégal dal île de Gorée anglais yi ñëw nañu Sénégal dal île de Gorée France yi ku mujj a jot ñoom dal île de Gorée waaye nag bi nga xamante ni Saalum si far ñëw na fekk xeetu tubaab yooyu yëpp jéexuñu fi te moom ak nitam dafa yéeme fi ne maam Serap Fall booy wax baatin bi nag naa baatin kese la waaye booy wax ci nit yi gannaaw Serap Fall mul baatin ak nit yi nit yi rek la doxe Hollande yooyu mu am ci ay techniciens yoo xam yoo xamante ni ñii CAP la ñu am ñii agressé ci mbéy ñoom nag ñoom la amal amalanteel ab diggante. ñu ñu jox ko ay techniciens ñu defal dongo yi formation professionnelle ñu ñu indil ko ay variété yoo xam te ne tubaab bee lu ko indil ndax mango senegal amu ko woon ndax mango baatu tubaab la moo tax mënoo ko wooye na neen ne nu ko tubaab bi indil ni mu ko tudd leen ko mooy mango garab yi tudd mangi yi guyaab baatu tubaab la tubaab yéen ko indil darkase la kii ni wolof dañuy darkase waaye pomme de la tubaab yéen ko indil yooyu yëpp pom kaneel tubaab yi ñu ko indil ñu am nag ay tubaab yu ñëw ci daaray maam Cheikh Ibrahima Fall di former dongo yi te formation professionnelle mu wutal leen jëwriñ nag di ñu wax sëñ maa Njaay Jóob Hollande yi daal di njabootu maam si Ibrahima Fall bu ci formation professionnelle nga xam te ne salaat ak lépp lu mu ci mën a doon ñoo ne nii lañ koy parqué nii lañ koy jëmbate nii lañ koy béye nii lañ koy récolté nii lañ koy def nangam nii lañ koy jariñoo am na bis ma dem géeb mel na magum taalibe ni ma ba nu jëkkee jóge géeb ñëw njaareem Cheikh Fall jox na salaat danoo wax ni Cheikh Fall ñam bi mën a jox àjjana la jóge ndax ñam boobu xamuñu lay saat ci àddina kon bu gën gën a xam tubaab bi ñu léegi nag mu wutal ko ñaari jëwriñ nag ñu yor loolu mu yaatu lool suba gu ñu xëyee saa maam si Ibrahima Fall bu génnee ba ba ba ba saafoonte murid yi yu doon nuyoo ba noppi day sol aw dàllam day sol aw dallam ko sawar la woon ak mu jëm ci njaareem ay 73 74 ans mu toll ca day sol aw dàllam dem ci tool yi dër yooyee yaa jab njaay nee ma te yaa jëbb njaay bi maam si Ibrahima Fall di ñëw njaari 1916 ne booba am njege maam la ne ne bu génnee ne ne bëkk néeg di topp ci nee nun jàng ji top ci topp ak jeeg ndaw ji yor ay ndab bu ñu ko tegalee siis bi te toolu sëñ maa njaay jóob la fa ñor wër te ba ñor ñu dagg ca muy fruit bi ñu indi ci kër gi suñu ñëwee ba ci kër gi ñu dëkk génne lii dem kër sëñ Tuubaa kër gu mag ñu yóbbu ko fa ngir ko añ ba noppi am doom ba teg doom ba teg si gémmiñ ko reer ba noppi man am doom ba teg si gémmiñ doo doo jox njabootu maam si Ibrahima Fall. bu ñu demee bu bu ñu daggee fruit bi ba noppi ñu yëkkatil ko siège bi mu dem ci toolu dër yi léegi nag ñu tàmbalee wit tàmbalee wit kànja tamaate batañse joxuta wit yooyu yooyu nga xam te moom la ñuy ba mu doy suñu ñëwee ci kër gi ñu daal di génne lii dem kër sëñ Touba ba mu doy la ci def ñu jox ko waa kër sëñ Cheikh Rafaal ñu toggee ko kulli yawmin kon sawaran na su ci jógee nag ci ñaari tool yi dër yooyu mu ñetti tool yi ndax ñaari da ko boole ñaari jëwriñ mu ñëw nag ci tool nag sëñ Ibra mbëggee bokkul sëñ Ibra kanji ma ma wax de sëñ Ibra mbëggee nag moo yoroon tookarum ñam bi booba ñu ko xiif te boobu tubaab yi amaguñu luñ ñu dundale dëgg dëgg dëgg saa maam si Ibrahima Fall nag tubaab yi indil ko ay variété ñambi bii nu xam nii ci Sénégal ñambi boobu noonu na ko tudd kóolóol ñambi bu sew la te xonq mi nga dox ba léegi am bu ñu jëlale gëñik ñu tudd ko ñambi gëñik tubaab yi indi ay variété nga xam ne mën naa ñor noor mën naa ñor nawet saa si Fall bu ñu ko jëlalee toogu bi mu teg ko ci tool yi ñambi yi ñu buddi ñambi ñii xolli xolli yaa jëb njaay ne ñii xolli xolli foofu lañ ko xollee duñ duñ yëpp sëñ sëñ Touba duñ fa yóbbu ñam bi bu ñu dañ koy xolli ba xam ne amul benn dafa première qualité upp ko ci ay ndab yu sell ñu yéen yóbbu ko sëñ Touba Fall ba ko ko bàkkee wàccee su mbindum maam laa ci am xattu yaddi sëriñ moom Omar Talla Fall ko bind mu nga ci saab saak lii nga laaj benn gouverneur général bu ñu wax Voltaire moo ko laaj sëriñ Fallu Mbakke tooli maam si Ibrahima Fall ak i dëkkuwaayam sëriñ Fallu laaj ko sëriñ Momar Talla Fall maamum kii sëriñ Cheikh Fall mu bind ko Bréon ci loxol ndijooram ñu booba dakaar mu am machine dactylographe ñu tappe la sëñ Momar Talla Fall bind ci ci wolof ñu tappe ko ci tubaab jox ko sëñ Fallu mu yónni ko gouverneur Victor la sëñ Momar Talla bind nag yàlla ma ko wërsëgal mi ngeen man ci laay wax ak yow Santhira Fall bi ma ko wàccee ndar la ko ku baax ki yebal ne ko demal ca teero yi mu dem ndar ba mu demee ndar mu ñëw ci mbéy ma doogu ñëw ci kër yi ndax loolu baleen ci mbéy mi 1994 loola nag da histoire bu la ko fa yóbbu ndax dafa am ak tubaab yi benn histoire ba am tubaab bu ci daanu ñu yóbbu ko hôpital yóbbu ko réanimation tubaab bi ragal bu ñu ragal Cheikh Fall nag ci biir Ndar moo tax ñu éloigné ko naa ngir mu sori leen bañ àll booba ni mu tudd jaara Tassinère ab dëkk la bu fa dañ ko wax pilote pilote dafa am benn lampe bu mel ne lampe ngor ci diggante dex gi ak géej gi mooy piloté bato yi pour bañ ñu réer waaye suuf sa jaara la tudd bi tubaab yi ñëwee ni ko ne benn laa bëgg a yóbbu suufu jaara ndax sa mbooloo bari nañu te nungu nañu liggéey te xëjuñu biir ndar dama ba bëgg jox suuf jaara nga digg suñ Tuubaa Baye Modou Mbaye Issa nee na ma bañ ko waxee Cheikh Fall dafa fudd ni xeexee nasaraan bi wax na dëgg kuy liggéeyal doomi jaaro boo ko joxee àllub jaara xol ba set kuy liggéeyal doomi jaara boo ko joxee àllub jaara xol ba set ñu jox ko suuf jaara mat na 7 kilomètres foofa ci Balien Ndar 12 kilomètres digg mag Ndar saa man si rafet nag fa yaatale mbéy moom ndax booba capitalu Sénégal mi ngi mi ngi Dakar waaye capitalu Afrique mu nga Ndar gouverneur du Sénégal moo doon nekk Dakar gouverneur général nekk Selvi AOF moo nekk Selvi ah Afrique occidentale francophone AOF ñoo nekk Selvi saa ma fi Ibrahima Fall nag déggoo ak tubaab bi li nga xamante ni maam si la Fall ku diplomate la xoolal sëriñ bi sëñ tubaab ngi li mu joteeg tubaab bi te maam Cheikh Ibra Fall sëñ bi doo nga lay gis nga mel ni nga xam bu doon noonu dan naan dañuy mel a tubaab déedéet saam Cheikh Ibra Fall dañuy bëgg ni fu sëñ tubaab ne mu xam te bëgg na lu sëñ tubaab nekk mu xam te bëgg na yi mu yónnee sëñ tubaab fu sëñ tubaab nekk ndaw man faa dem te nee na loolu nag bu ma joxasu tubaab bi du ma ko xam kon jaxasoo tubaab bi ñoru ko li ko ñor mooy ndawam li ay mbiram yi yëgg ci sëñ Tuubaa ca ca loola nag ca la am leen teg ñi mën a yaatu mooy ndànd ndànd nag kër ga la gën a yaatul suuf sax ndax bi mu ñëwee ndànd ndax loolu dama ci ñëw ci ci li ngay bëggalaat ci kanam bi mu ñëwee ndànd booba yoonu murit wi yaatuugul te booba bindee fi Sénégalais yi d'accord guñu ci wóotib Sëriñ Tuubaa bi jalaat te euh, xalaat boobu mu am nag maanaam maanaam euh, xalaat kii boobu mu am intellectuel esprit intellectuel boo maam si Fall am jalaat daal ne ah man nag sama sëriñ bi mi ngi wooteel yàlla tabaraka wa di wooteel Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te waaye système bii mu koy wootee muy muy muy boole xaqiqatu ak shariatu xaq sharia bi nit ñi miin nañu ko waaye xaqiqa bi la ñu miinul te ko bàkki ñaari tànk biirub loxo ak bitub loxo dara mun ci dem bàyyi morom ko baax ni ma dalliya shariatul mutahara man xaadili aqiqatul munawara te aqiqa bi ko dama ko war a doxal kon nag tey gisub maam Cheikh Ibra Fall sëñ bi na nga dégg leen wax de gisub maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ bi joteegul tubaab bi waaye béykat yi xam na ni dina am ca la dàkk gaar yi nag benn laal ci indi léegi rek ba mu ñëwee nag ndànd ca wetu gaar bi mu jënd fa juróom benni loo yu titre foncier simli ko ci wetu gaar bi ndax dañ ko xatal bi mu ñëwee ndànd bokkam yi cebbe yi dañu ni Cheikh Fall ñëw na ndànd te war naa moom ndànd te am na ngir mu suñ Tuubaa bu nu ko yaatalee deenu xatal ñu bu ko xatal nag mu titre foncier ca juróom benni loo yu simle dox digg ma gaar bi la ñoo la jógee ndànd ñëw kees fu ñuy wax daaru bayre bi mu ñëwee daaru bayre la waa ndànd wax na moom la séeréer si wax la man gasam la man fandeen la man coonaa ñoo ñëpp séeréer si ne ah xam nga ab séeréer moom sëñ Abdou Khadir Mbacke waxan na sama benn xar ni ko ab séeréer amul xol bu ñuul te ko ne xanaa séeréer nga mun ko am nga séeréer di amul ñuul xol waaye nag séeréer dafa bëgg dëgg waaye ñu ragal Cheikh Fall nag ne ko waa ndànd ragalewoon ñun leen am na ku ñëw ci yéen am na ngërëmu Sëñ Tuubaa tey tey war naa falo dameel teeñ ndax gërmi la séréer si ñi ñu ko dogal tool maam Cheikh Fall daal di yónni ci gouverneur général bi nga xam te muy muy yilifan Afrique francophone travaillef daal di yónnee ne ko man di ñëw naa kees am naa fu ma dëkk waaye amu fu ma béy te dama bëgg di gis sëriñ bi gouverneur général daal di koy boole commandant de ba nekk Thiès moo war aw fos saamam si la fal war aw fos ba maam si Ibrahima Fall di ñëw Thiès ci Dóor Bayre ñaari téeméeri tër yi ba la àndal moom Cheikh Fall garde yi topp ci ñu yor ay ngëpp ak i jaasi ak i simmiñ di marqué ci garab yi loolu mu tudd ŋat ci wolof di ŋat garab gu mag bu ñu dem marke ci loo xam ne fekk garab gi da daa doon marqué ba ne fa ba njëkk ko fa lu mat 7 kilomètres carré xoolal 7 plus 7 lu mu doon boo ci doolee set lu mu doon. boo ci doole set lu mu doon muy tuub mu def ko tuuba waaw ba mu ñëwee Dakar noonu la def xam nga Dakar ku ne seen far amoon na fi daara xam nga loolu saanam seen far bi mu ñëwee Dakar bi suñ bi embarqué fële ko nekk fële ko nekk ba suñ bi ñëw fekkaat ko fa li mu def nag mobile la daan def daara yeneen kër yi géntuñu dem ñëw dakaar rek waaye Dakar la juróom-ñaari ati sëriñ bi juróom-ñett yu maa ngi tuuti Dakar mooy lieu principal bi Cheikh Ibra daan toog waaye bi mu ñëwee dani nañ ma wutal kër booba dakaar kër yii la boo yii yàq jëfa fa ak mbot mboti pom ak rëbës ak tabaxi buur ak kaay sindiw yooyu ñu doon dëkk libu léegi nag dëkk libu yooyu saaman ceex faal li ko tàmbalee nag ñu wutal ko kër nag ci yàq jëf ca wetu mbot waaye fa fikk dëkku libu ya mu ni dëkk bi nu mu tudd ñu yàq jëf mu ngi nañ ma wutal faneen Ibra Faal amul lu dul jëf fu jëf di yàqu du fa dëkk waaye boo génnee yàq jëf tuuti rek da nga dugg rii tool bi yàgg la ko tàmbalee tool bi yàgg ba palais présidentiel di tool yi maam si Ibrahima Fall maa la ko wax sëñ Abdou Sakor Fall nee na saa maam si Fall daa na fa béy mbéyum moom yi may wax dafa béy mbéyum nawet mii nu taxaw tey ba palais présidentiel muy suufam léegi nag bu ñuy béy mu am genn garab bu mag garab googu mu tudd ak sànd sànd xam fi fii sànqaay ngi ni ñuy wax ngaabu sànqaay garab googu mu tudd ak sant ak garab la sama maam si Ibrahima Fall nag garab ga di garab gu mag fa daan fa la ko daan tegal ab siisam muy toog ñuy béy ñu ne ko fa fekk ca garab googu tudd ak sànd léegi nag dëkk li bu yooyu ay yàtt jëfa kaay fi ndewa ngote pamaak ñoo ñëpp di di lakk seeni jën di ko fi indi di beñe di ko fi indi di gerte caaf di ko fi indi di ko fa jaay ku lakk ni nan dem ca Sandaga ngeen dem ca Sandaga bu si yàlla faa toogee mbooloo mi toog soo ñëwee loo jaay mu jar mooy Sandaga ba léegi nag. ba nga xamante ni saamam si la faal moom la suuf sax naka la ko xam nga lambi ci biir suuf si ma la ko la ne dégg nga. ba présidentiel surface boobu ca la lambi ne lambi naas tudd lambi naas booba hôpital hôpital yu tubaab yi fajoo te tudd léegi principal ak la Dantec hôpital yu tubaab yi daan fajoo. boobu seen ambulance dafa am ay garab yu féex yoo xam ne bu ñu bu ñu yóbbuwul malade jëliwul malade fa la ñuy gaare kër Cheikh Fall ga nag den nañ ñoom kuy tegtal ne boo kër Cheikh Fall gaa ngay fa ca ambulance ya comme comme wala baatu tubaab bi xamul ambulance nag ñu ne l'ambulance waaye naas amul làmb du ñuy bëree ambulance la léegi nag muy kër maam Cheikh Fall ga ca l'ambulance foofee kër ga da nga li may wax de mooy fi maître Lamine Gueye dëkkan maître Lamine Guèye kër googu moom la Ablaye Wade di jëndal parlement bi kër Cheikh Fall gàngoo waaye pare ba dëkku ca woon waaye ca tool ca suuf la bokkan ca tool ya la woon waaye fii Ablaye Wade jëndal parlement bi. fii fii ne assemblée nationale. xëy na waaye Ablaye Wade ku jëndal parlement bi waaye fële la Lamine Guèye dëkk nag ginnaaw la Lamine Guèye nag la loolu am foofu soosee nag. surface bi li mu yaatu yaatu yaatu yaatu yaatu ak kër Cheikh Fall bi bi maam Cheikh Ibrahima bi Serigne Touba jógee ci géej ga te Serigne Touba Cheikh Fall lu mu def Serigne Touba dong nga tax amul ñaari bët benn bët am Serigne Touba la koy xool ba mu ko wàccee ci këram ga te def defin wu yéeme wa Serigne maam Cheikh Ibrahima Fall moo ko boote kër Moussa Yes Diagne te cëriñ ndax lébu yi cëriñ ak cëddeem moo ko fa boote kër Moussa Yes Diagne baayu Mboor Diagne fa la ko Cheikh Fall boote mat na 7 kilomètres indi ko kër bi ci làmbi naaf boot ni ñuy boote ni ñuy booteeb liir di ko roggundi moo tax si Moussa Kana euh, keroog ba Cheikh Fall booti sëriñ bi keroog Cheikh big na mbig moo xam ne jommal na France da ko boot rek di daw loolu da ngay xool nag ban dimension bu Cheikh Fall nag mooy kan 7 kilomètres ba mu ko fa yóbbee nag ba mu ko fa teegi la kër gi ak suuf sa jox ko addiya suuf soosi ak kër ga ba mu ko ko joxee addee la ko Serigne Touba jox rakkam sëñ Cheikh mbak Mbacké waaw moom moom Ka bind ca gisewul sëkkoor ni ni mu jël kër ga ak baraajeer jox ko naa ko mbër nga mu sarax ko rakkam Cheikh Thioro foofu ay barab maam si Ibrahima Fall Serigne Momar Talla Fall nee na ci ma ba ba ba mu liggéey ab sëriñam ba mu gërëm ko ci teeru yi la ko yebal yebal ko ndar mu teeru yi muy dëkk taax yi ba mu demee ndar dafa daal génn kër muy permis d'occuper muy kër gi ci gét ndar ñu tudde ko léegi école Cheikhou Touré waaye esprit intellectuel bu maam si Ibrahima Fall comme ni nga wax mu xam ni tubaab bi dégguwuñu ak sëriñam bii tedd yi dégguwuñu sëriñam bii lenn ci ñeneen yi dégguwuñu sëriñam bii ci lii may woote moo xam ni permis d'occuper saa bu neexee gouvernement ba ni la ni la la ni dama fi def nangam Cheikh Fall ni kër googu kupp foofa sëñ moo taala Fall lu mu bind nag sëñ Cheikh bu dee bu dee jënd danaa jënd kër titre foncier bu dee permis d'occuper mu ne am kër <laughs> permis d'occuper kon jënd am du benn mu daal di jóge foofa daal dem njaago gor fa daara njaago soo jógee gët ndar romb sanc ba romb goxu mbaaj yaa ngi njaago mu am fa daara ju mag histoire bu mag am na njaago ci génn jigéen moo ko waral lan jigéen di yegg ci yàlla seera faal defar ko moom muy defaraat mu am fa daara neen muy ñaar mu ñaar mu daal di génn bitim ndar mooy soor teen jigéen jënd fa kër ab loo titre foncier ko fa la tàmbali titre foncier nag mooy maam si Ibrahima Fall te soor loo boobu mu jënd titre foncier ko da nga xamante ni ku baax ki jóge na njaari ñibbi si Touba muy borom Touba Xaadimu Rasuul Cheikh Modou Samba Mbacke aleyhi salaatu wa radiyallahu taala anhu jël xilaafa te jot ndigalu Sëñ li mu tàmbali woon mille mille neuf cent vingt six Sëñ Tuubaa jox ko ndigal ñu tàmbali jumaa ji loolaan jumaa jooju dafa am lu baare lii barab boobee ñu indi ko fii mu nekk tey ndax fii mu ne Sëñ Tuubaa dasu ko fi woon waaye bi ñu indi Sëñ def ko fii ñu ko def te jumaa ji jiitu woon ko fee ñu jullee niiw ya tey Cheikh Modou Moussa Mbacke mu baax mii may wax ci taalibe gi moo ne man Mouhamadou Moustapha mënu maa julli Sëñ mu jóge fa ñëw àll boobu ma la wax Tasineer Ganjool mat na 7 kilomètres ba ah ci jaara yoruma kurus du wax naa 3 muy 4 ca Tasineer Ganjool titre foosé mu jóge Tasineer Ganjool ñëw Louga am fa kër waaye titre foosé ko permis d'occuper la. ca wetu gaar waaye ëpp Louga la mu jóge Louga hmm, ñëw ngumba waaw jënd fa kër titre foncier jóge ngumba ñëw Kébémer jënd fa yetti kër titre foncier ko ñetti kër yi nag ñaari looy ñetti loo ñaari loo yi ñoo takkaloo benn loo bi dafa traversé en diagonale ci côté bi la beru waaye jàkkaarloo ñu dafa traversé en diagonale xam nga jago léegi nag mu ñetti loo yoo xam te ne maam si Ibrahima Fall daf ko titre foncé doo nga faa jóge ñëw ndànd jënd fa juróom-benni loo xam nga juróom-benni day compter ci limba ba kee six la kee trois la kee benn la jënd fa juróom-benni loo titre foncé ko ñëw kees jënd fa ñeenti loo titre foncé ko. ñeenti loo yooyee muy fii suñ Seex Jëmb Faal di gàmmoo tey yal na fa yàgg a gàmmoo sa maam si Ibrahima Fall moo ko jënd titre foncier ko sëñ Abdou Sakkoor Fall moo fa jëkk gane jamono 1908 mu Seera Fall muy ñeenti loo mu dem ci limba mu jóge fa ñëw Daaru Bayre am fa am fa ñeenti ñeenti daara mooy daara yi ma la wax léegi daaru xidmati ay ndu rahmati daaru bayre dem Dakar te loola la mu yaatu yaatu ma de sit kilomètre xam nga fi ma ritol bi yàgg ba palais présidentiel waaye benn benn génn kër lañ ko tuddee kër Cheikh Ibra kon amul morom kër yaa tool ñu boole muy génn kër mu fekk limba mu jóge fa nag ñëw jóge kees ñibbi si njaareem ginnaaw bu mu indee sëriñ bi njaareem yaa ngi dégg boobu baat na ko ŋànk nag ginnaaw bu Cheikh Ibra Fall indee sëriñ Touba njaareem ŋànk ko ba ëllëg nga laaj ma mu ñëwee njaareem daal di wut ñaari kër tudde génn kër gi màkkatal mu karam moom la wax màkk loyole fa la suñ si ndigal faal ne yàlla fa yàgg ko wér tudde génn kër gi madinatul munawara màkkatal mu karam madinatul munawara saantre faal daal di xam ne ak jur gi ñuy jëfandikoo ñetti xeeti jur la fos mbaam ci jur gi ñuy war ak jëfandikoo te duñ ko lekk jur gi ñuy lekk ñetti xeeti jur la ah ñeenti xeeti jur la ba juróom nag gëléem xar béy ginaar mu jël luy luy sax aw don muy ginaar muy banjooli muy autriche ci tubaab yooyu luy saxu don mu teg ko ci loxol génn jëwriñ di ñuy wax sëriñ Mbay Jóob Ginaar jox ko jox ko mbooloo ko nag ay vétérinaire yu toppatoo ginaar ci tubaab yi ñu jàngal ñooñu nu ñuy yare ginaar yaa ngi dégg lool ba ñoom it bu ñu jógee ca daara ja ku ñibbi sa kër ginaar dañ ci mën a dund dañ ci mën a dundal aw nit mu jël sos fos fos fos ci boppam. Bamba Ndiaye wàqi moo jur cirib fos wa fos ya nga xam te ni ku muy may aw fos wala fos wu ñëw ci loxoom lañ koy teg moo yoon fos ya di ko saytu ñu jokk vétérinaire yoo xam te ni fos dong la ñu man ñoom it tubaab yi di di déplacé wu di ñëw di jàngal dongo yi nu ñuy saytoo fos su ci pikir wala ñu pikir leen lu ci lu ci war ñu def ñu defal leen ko nii la ñu ni dundale ba dongo yooyu ku ci jógee soo demee ba am ngërëmul yàlla li suñ tubaab ni looy am moo ci gën ridan wa rahmatan min allahi ba di xëyri mina dunya wa fiha jami suñ tubaab ne am àddina ak li ci biiram am ngërëmul yaa ci gën yàlla na ko am ci barkab daara ji suñ si jëmb faal léegi nag fos bu ñu jógee foofa ku dem yóbbaale ngërëm yóbbaale boo jënd yaari fos balaa am ñetti at nga développé ko mu jël mbaam jox ko baay Cheikh Ndiaye mbaam Ablaye Ndiaye mi yor mbaarub suñ am di di faal bii baay ndeyam Baye Cheikh Ndiaye Mbaa ma ko jur Xadi Ndiaye ndeyam Baye ko waaye loolu lépp nag kon def na ko kon kon gis nga ni mu xaajale élevage. mbay meek mbay meek. Euh, càmm gi ak at yi ñeneen ñi indi lépp kër tuba ak lépp loo xam te ne ko aju ci moom jox nag ko ak ay seexam da ko teg ci loxol borom tuba Tuubaa na Rasuul Baay Faal gépp looloo ko daj kër Cheikh Fadal lu ñu liggéey sëñ Tuubaa di liggéey sëriñ Moustapha Seck Baye Fall ñu koy gërëm bu baax ci leeral yi nga xamante ni indi na ko di gërëm bu baax sunu jeneen jëwriñ jiñ ci àndal maam sëriñ sëriñ maam Cheikh Fall di gërëm sëriñ Cheikh Jëmb Fall waaye di gërëm njabootu Cheikh Ibrahima Fall yépp mbokk téléspectateurs yi jotaay bi amoon na solo lool dolliku nañu ci lool di wane ne ni ma ko waxee ca ba ñuy doore la ñu doon junj yàlla defal nañu sax lu kawe suñu njort di wane ne rek euh, moom avant leur la xamoon kii li nga xamante ni moom mooy Cheikh Ibrahima Fall gis ngeen na mu ko defee ci transfert de compétence ak hollandais yi nga xamante ni amoon nañ intérêt Sénégal waaye gis ngeen na mu ko defee ci français yi ci transfert de technologie ci jamono jooju ci li nga xamante ni mooy français yi nga xamante ni ñëwoon nañ fi gis ngeen na mu tàmbalee woon mbayum dër euh, mooy li nga xamante ni tey jii moom la ñuy wax maraîchage ak horticulture nga xamante ni egg na ci bëri na tey jii lu ñuy jëfandikoo moom ci ay pexeem ci intelligence sociale bu mu amoon intelligence économique boo xamante ni amee woon na ko loolu moo tax tey jii ñu am euh, mbir yooyu yëpp nga xamante ni tey ñoo ngi koy meññe fii ci réew mi mu amoon it li nga xamante ni mooy taxawaay bu am solo ci wàllu formation professionnelle nga xamante ni ñu mu ci jël ba ñu xam liggéey ba ba ñu tàggat leen mu tasaare leen ci biir réew mi ci wàllu décentralisation it gis nga ko ni nga xamante ni noonu la ndare woon képp li nga xamante ni moom mooy réew mi wane it ni foncier amee solo nekk une matière première importante le foncier waaye foncier boo xamante ni doomu dëkk bi dañ ciy jot donc ngeen gis ne problématique yëpp tey jii ñuy waxtaanee kii di maam Cheikh Ibrahima Fall defoon na ci lu am solo te fépp fu mu wut tool wut na ca wet ga li nga xamante ni moom mooy daara ni nga xamante ni noonu la ko kilifaam dib sëriñam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul joxoñe woon mu nekk matérialiser la vision de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul par rapport à son projet de société mais surtout def le focus sur le capital humain de qualité bi nga xamante ni moom moo nekk à la base de tout développement économique et social harmonieux ñoo ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant. aja